le président est-ce que est-ce qu'il n'est pas un homme seul jamono yi li tax moo ko mooy euh, cette décision euh, de reporter bon par reporter parce que jógul ci moom euh, d'abroger le décret bi convocation électorale bu mu ko jëlee am na ñu jël seen ay distance ak moom ma cité ñaari ñaari ñaari exemple ku ci mel ne Abdou Latif Coulibaly ku ci mel ne Zahra Iyane Thiam ay kilifa yoo xam ne duñ n'importe qui ci ci régime bi mais aussi les alliés ku ci mel ne le porte-parole de l'AFP Malick Diop jour bi ñu ko voté à l'Assemblée nationale il a préféré rester chez lui ñëwul gis nañu aussi Abdoulaye Wilane démb démb am lu mu wax aussi par rapport li assemblée wax que ne àndu ci est-ce que gars yi nekk ñu di lâcher un peu le président Abdoulaye Wade euh, Macky Sall non pas du tout parce que c'est c'est le président Macky Sall la démocratie la liberté d'opinion dans son parti et dans la coalition parfois il y a des limites parce que parti politique aussi dafa am discipline de am na loo fooy waxee am nañ instance fi ngay waxee. Mhm. bokk nga ci instance yooyu nga waxee foofu. il faut que li lépp nag dem na naa la ci jàngatu li xew yëpp parce que am na ñoo nga xam yaakaar nañu ni euh, way dama jëngu wax lu la neex no liberté dafa am dama wax toujours j'ai l'habitude de le répéter et je le prends toujours du président de liberté dafa ànd ak responsabilité. Mhm. mante am na kàddu yoo xam su ma ko su ma ko waxoon fii nga xeeb ma su fekkee ma wax ko ci parti bi wax ko ci coalition bi nga xeeb ma. ou bien ma wax ko ci état du Sénégal ma bokk ci gouvernement du hmm. Sénégal bokk ci secrétariat exécutif national du de l'APR ma waxee ko personne ne me respectera même bu fekkee ni parfois sous l'effet du populisme ils vont dire waaye kii am na courage mais ça c'est pas le courage c'est d'autant digne de confiance ouais, ouais, mais il faut mais maintenant Euh, je ne peux pas man dire Mame Malick de préférer Ndeye Scrème man je ne peux pas là de juger des comportements des uns et des autres. c'est le porte-parole de l'AFP. j'ai beaucoup de respect pour lui j'ai pas de commentaire à faire par rapport à une attitude personnelle je ne suis pas préoccupé par ça moi ce qui me préoccupe. et démarqué du communiste de l'Assemblée nationale. mais il est député il est libre d'avoir son acte les députés répondront mais man nekkuma ci loolu dama nekk ci réewum Sénégal xam nga réewum Sénégal dépassé na nos petites querelles nos petites mais li ma bëgg a foofu rek mooy est-ce que le président Sall en prenant cette décision d'abroger le le le le décret bi wax ibi il n'est pas allé un peu trop loin ba ñenn ñi jàpp ne kat ah ñun fii lañ mën a yem ak moom. mais non pas du tout ba tey kenn waxul ni dama yem ak moom fii. amul kenn ko wax ñu dama yem fa Latif Coulibaly a tiré le conseil euh, on peut comprendre parce qu'il y a quand même son frère qui est mis en cause lui il est secrétaire général du gouvernement cette position personne ne peut la Zahra ko ko est encore à son poste Zahra a elle est militante de son parti elle est membre du secrétariat national du parti elle a pris une position que le parti appréciera mais loolu pour moi c'est c'est des épiphénomènes c'est pas ça le plus important c'est le plus important c'est le